rabbi a'uudu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ni ñu ko baaxi woon a def ak yéen di leen andil lenn ci xisay yonante yi ngir di am yéene yi mbokkum jullit mu ne mën cee jariñu rawatina ñi mënta yër làkku arab ak képp ku ko mën a yër te sab sa jot mayu la yër gi ñu indi xissa yi ngir bëgg nit ñi mën cee jariñ ñu ngi tàmbee woon ci xissa xissatu yusuf alayhi salaam teg ci xissatu suleymaan ibni daawud teg ci xissatu ayub ba euh, tey jii nu am yéeni andi leen qissatu Muusa alayhi salaatu wassalaam sunu borom tabaraka wa taala wax na ci alquran ni waskuru fil kitaabi Muusa innahu kaana muxlisan wa kaana rasulan nabia muy Muusa ibnu Imran ibnu Yashur ibnu Qaahis ibnu Laaw Yaqub alayhi salaam Euh, boroom xam-xam yi wax nañu ni Yaqub bi muy am laaw boobu mi ngi am juróom ñett fukki at ak juróom ñeent laaw moom mi nag moo denc naabita bintu ma waa bintu yasjub am ci ku ñuy wax xarsoon xarsoon moom yi am ci ku ñuy wax xarsoon ak marda ak xaaxis xaaxis moom yi nag ginnaaw bu mu amee ñeent fukki at juróom benn la denc faahi bintu mubin bun tanwil ibnu ilyas am ci ku ñuy wax yashur bun xaaxis yashur moom yi denc ku ñuy wax sumayit bintu yataadim bun zakariya bun bishaan bun ibrahim am ci imran booba am na juróom benn fukki at wax nañu yashur amoon na téeméer ñeent fukk juróom ñaar ci jamono boobu Himran bun yashur moom yi bun najib denc doomi Shamawil bun Zaka bun Baskiya bun Bashaan bun Ibrahim am ci Haaruna ak Muusa woote nañ ci seen turu ndey ñoom ñaar ibnu Isxaaq wax na ni Najib la tudd am ñu ni Naajiya la tudd am ñu ni Yuxaabiil la tudd mooy li siiw Imraan amoon na téeméer ak juróom-ñaar waaye bi muy am Moussa mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at boroom xam-xam histoire wax nañ ni bi Rayyan ibnul Walid mi jamonoonte woon ak uh, Yuusuf faato te Rayyan ibnul Walid moom yi moo dénkoon Yuusuf magasin suuf yi mu daan ya magasin yi mu daan joxe ab dund jamono boobu te mu joon jëbbale ci ñaari loxo Yuusuf wax nañu bi mu faatu ku ñu wax Qaabus bun Musaab moo fi toog waaye Yusuf woo ko ci diine mu bañ doon ku dëng doon ko gudd fan ba ci biiru nguuram ci la Yusuf faatu wa salaatu wasalaam ginnaaw bu mu faatoo moom Qaabus moom yi mbokk mu ñu wax Abul Abbas ibnul Walid bun Musaab bun Rayyan toog waaye moo yées xaaboos gën koo kàccoore ak ngoram yàgg lool moom itam banu israil ginaaw bu Yuusuf faato ñuy dund ci lool yi waaye nag dund ci biir nguur gu targoo gi waaye teewul rek ñuy dund ci des yi ti dina Ibrahim ji leen Yuusuf bàyyi lool dana ci loolu lañ wéy ñoom bani Israil ba Firawna mi yàlla yónni woon Muusa ñëw Firawna mi yàlla yónni Muusa mi ngi tudd Ramsis II Ramsis Assaani waaye Firawna moomu dikk yéesati mbooleem Firawna bu ko jitoon xam ngeen ni Firawna aw tur la wow képp ku doon buuru Misra rek Firawna lañ lay wooye dafa doon aw dàkkental ci ñi ñi yilif misra firawna moom nag menn mosu koo yées ci firawna yi fi jaaroon kenn gënu ko rëy ay wax kenn gënu ko aw ab xol gën leen a gudd fan lool ñaaw lool politique bu mu daan doxal digganteem ak bani Israël ndax daf leen daan mbugal di leen jaamuloo daf leen ay surga xeetale leen ci xeeti liggéey yi muy liggéey xeet wuy tabax wii xeet di bay wii xeet méngoo jëf yu salte yi muy raxas ay dus ak yu demee ñi yelloo wut xeet liggéey yépp nag am galak bu mu leen di laaj te mooy lempo ni ko yàlla wax ci alquran ni yasumuunakum suu al azab yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuuna nisaakum muy jamono ba nu ñu leen di teg mbugal mu ñaaw di rey seen doom yu jigéen di rey seen doom yu góor di fi bàyyi doom yu jigéen yi firawna moom nag mi ngi dencoon jigéen ji ñuy wax asiya bint musahim radiallahu anha mu bokk ci tànnee fi jigéen ñi asiya buntu bintu musahim moom yi moo doon sataatu rayaan ibnul walid mi jamonoonte woon ak yusuf te jëbbal woon mu xaatil nee na ahlu misra ñett ñi rek mas a jablu muy asiya ak hasqil ak mariama bintu tamusa mariam bintu tamusa nag moo tegtale woon bàmmeelu yusuf alayhi salaam ci jamono bi ñu réere jamono bi bani israil bëggee génn far réer bañ amee jaaxle dafa Muusa dafa dajale boroom xam-xam yépp laaj leen nee nañu ne ko yusuf alayhi salaam dafa daalante woon ak waa Filistin ni leen sax bu ngeen demee bay génn da ngeen ma génnee waale suufas Misra yóbbu ma ci suufas Filistin kon jort nañ ni réer gi ñu réer loolu moo nu ko teg Musaa bi muy wër di gëstu ko xam ba as tox na xam le ni xam naa ko Musaa ni ko nañ dem goon ma ko mu ne ko ma kàtt nu dem xanaa rek may tungoom Musaa tungoom ko ñu dem ba ci taxug niil bañ demee ba ci dexum niil mu wax ni fii la nekk dangay ñaan yàlla ndox mi randu bi Moussa ñaanee yàlla ba ndox mi randu jigéen ji dox ba ak si taxaw ni fii lañ dencoon Yusuf bañ ko gasee fekk fa kees ga ñu yanu ko yóbbaale kooku mooy Mariamu bintu Tamusa Firawna wax nañu dafa gudd fan lool ci ñoom am nañu ni sax amoon na ñeenti téeméeri at lépp rek ñuy dund dund bu metti boobu ñoom bani Israël bi yàlla demee ba bëgg a wuññi njàqare ci bani Israël la yebal Moussa alayhi salaam te su dee li ci juddug Moussa wax na ne Firawna dafa gént lu mel ni safara wu jógee baytul maqdis ñëw daj néegi misra kap lakk ko lakkaale mboolem xibta yi muy waa misra bàyyi fi bani israil firaanam woo mboolem njabarkat yi ak tenikat yi ak firikat yi gént yi ak e, boroom xam-xame biddiw yi laaj leen géntam googi ñu ni ko dafa am xale bu war a judd ci bani israil bopp bu juddoo mooy nangu sa nguur gi ci yow moo lay not dana la génnee yaag sa waa kër ci sa suuf si te sa diine jii dana ko soppi te jamono ji muy ñëw jege na soreetu jamono ji mu war a juddu yegsi na biñ ko waxee loolu Firawna digle ni kon bépp xale bu góor bu juddooti ci bani Israil waa bani Israil nañu ko rey daal boole jigéen ñi daan doon ñépp daal leen di digal ñuy wër di bind mboolem ñu toll ay diggante ak ñu toll ci seen weer di wax ni ku ci toll ci ab weeram rek na ngeen dem seet ko bu dee góor ngeen wane ni jur ngeen wane ni eh, diw jur na góor léegi jigéen ñi di liggéey liggéey boobu yi ku judd bu dee góor ñu wax raykat yi ne leen kii góor la jur ñu daal di koy ray ca saase bu dee jigéen ñu bàyyi ko danañu wéy ci loolu yi ci wéy di ci wéy ba mu am diir bu yàgg nee na waa misra dajaloo ni firawna liggéey yii nu bani israil daan liggéeyal kat mi ngi bëgg a agsi kaw ndax xale bu góor bu dëgër bu yokk ci bani israil amatul seeni màgget ñi ngi faatu nee na Firawna leen kon nañuy def bu ñu reyee am at jëndal am at ndax ñu leen di liggéeyal man cee juddoo wax nañu ni Haaroona mi ngi judd ci at mi ñuy jëndal di ci ñàkk rey Muusaa nag judd ci atum rey mi bi Moussa juddoo ci at atum rey mi nag yaayam tàmbali ko nàmpal xelam dalu ci ngir xam na ne buñ ko gisee dinañ ko rey yàlla wax yu ko ni ko nàmpal ko boo ko ragalee nàmpal na ko tàbbal ci géej gi daañu ko delloosi ci yow bul ci ragal bul tiit des na ko delloosi ci yow boole ko ci yonante yi ne yàlla te wax yo loolu yaayam tàbbal ci am xelam mu daldi wut lu mel ni ak kees liggéey lu benn kees daf ko dénk daldi di wut lum nooyale biir ba dal ciy tarat Moussa ki ñuy wax mu xaatil nee na kees googu yi mii mu'minu aali Firawna moo ko liggéeyal nee na bi ko liggéeyee ndey Moussa daal di fab Moussa dugal ko ci biir daal di koy sànni ci dexu niil ndox mi wéyeeg Moussa duus yi di ko sànnente ba ba dugal ko ci diggante ay garab yi nekkoon ci kër Firawna xam nga ni Firawna pale bi mu dëkkoon mi ngi tiimoon dexu niil garab yi mu ko tàbbal nag ab dajewukaay la maanaam ab ay garab la yoo xam ni jébéeri na fi lañ daan daje dafa sangoo ak di fa fóote turu Muusa loolu moo ko andi wax nañ ni Muusa moo li muy tekki mooy ndox saa di tekki ay garab ci làkku waa Misra ci jamono boobu fekk gi ñu ko fekk ci diggante ndox mi ak garab yi nag moo tax ñu di ko wooye Muusa jibari firawna yooyu bi ñu ko gisee dañoo jàpp ne alal nekk ci kees gi ñu jël ko waaye noonu lañ ko yanoo rek yóbbu ci Asiya mi doon soxna si firawna yóbbu ci Asiya ñu ubbi kees gi fekk muy xale bu góor bu rafet Asiya am ci moom ak cofeel lool ni alxuraan waxe ne waa alxaytu alayka mahabbatan minni mu yàlla daf ko defal ak cofeel gu jóge ci moom defal ko ak cofeel ci xoli nit ñi ba ku jàkkaarloo ak moom rek daf koy daal di sopp wax ne ni mu ko génnee ci kees gi doomu doomu firawna bu jigéen bi ñëwee laal ko lor yi doon génne ci gémmiñu Muusaa bi mu ko laalee siti si nekkoon ci moom dafa dal di wér mu dal di fab Muusa tàpp ko ci ab danam foon ko waaye daw yi bokkoon ci nit Firawna dal di wax ne kii di jot nañu mooy kiñ wax ni dafa war a judd ci bani Israil nga doon ko moytu ndax li tax ñu sànni ko ci géej gi rey ko mbaa nga sàkk ci taxe nee na bi ko Firawna bëggee rey Asiya ñaan ko ko bi mu ko ko ñaanee ni koy sëy nañ lu yàgg amuñ doom kon nag bu leen ko rey laa taqtuluhu asaa an yanfa'ana aw nattaxizahu waladan bu leen ko rey ndax mën na noo jariñ mbaa ñu jàppee ko doom bi mu ko ñaanee Firawna Firawna may ko ko mooy ki ko tuddee Muusa ndax Muusa loolu lay tekki mooy ndox ak i garab bi ko ko mayee la ko tudde turoo yi moom Asiya yaay Muusa nag dal wax magi Muusa ju jigéen ni ko xeeñ ko magi Muusa ju jiw mi ngi tuddoon Maryama ko siihi mooy na nga topp jeex itam di ko xeeñ ndànk par ndànk tey déglu ba xam loo ciy dégg ndax mi ngi dund wala dàbbay géej gi alag nañu ko lekk nañu ko waaye mu mel ni dafa at bi yàlla ba mu ko dawloon muy inna raaduhu ilayki nee na xale bu jigéen mu topp ko di ko xañ ndànk par ndànk te yëguñ ni kii moom lay topp ndax ma nga nekk fu sori mooy fa basarat bihi an junubin wa hum laa yash'uruun mooy mu di ko gis fu sori te yëguñ ni mbokkam la xamuñ ko asiya bi jotee ci xale boobu dal bëgg ko ko nàmpal mu yeble nañ ko waral jëpp jigéen ju am soow ngir mu nàmpalal ko Muusa waaye jigéen ju ñëw bëgg koo nàmpal rek bu ko jëlee Muusa nangu namp ci wenn jigéen jooju ba Asiya dem ba am ci tiitaange xol loolu mooy la alxuraan wa xaramna alayhi almaradia min qablu mooy dañoo araamaloon ci moom namp demee ba tiit ci yàlla nanguwul kenn magam yéen jooju ni leen ndax danaa leen tegtal waa kër goo xam ne danañ leen ko yaral te danañ ko laabire dana bi kàddu googu ay daw yi di koy jàpp na bu ndaxataal da ko sonal ne xamal ni ñooña danañ ko laabire yow mën naa am ngóor si da ko xam danga xam kan moo ko jur mun dama leen a xam xam ne danañ ko laabira am ci moom ak toyal ngir xaymam teef bi am ci amub cër fii ci kër gi bëgg gu ñuy bëgg amub cër fii ci seen kër gi muy këru góor gi mooy tax war na mën rek seen kem kàttan danañ ko ci def bi mu waxee loolu ñu daal di koy bàyyi mu dem ci yaayam wax ko xibaar bi bi yaa ñëwee bi mu ko aw rek mu daal sax ko daal ci namboo nangoo nàmp nee na ñu daal daw dem ci Asia ni ko nangu naa namp wutal nañ la ko mën a nampal sa doom nee bi moom Asiya ba xool ba gis ne mi ngi nàmp daal di wax yaayam ni ko da ngay sax yi fi man di ko nal di nampal sama doom bi ndax musum nii ma ko bëggee mësuma ne bëggee dara mukk ci àdduna nee na ji ni ko ah, loolu de dana dis ci man toog fii di ko nampal bàyyi sama sëy ak sama njaboot ca kër ga ñuy sànku waaye ba ma ko mënoon jox ma yóbbu ko ci kër ga de kon ci laa koy gën a mën a yare gën koo mën a nàmpal ba ni nga ko bëggee da ko ni amee nee na Asiya may ko loo lii bi mu ko mayee mu delloo këram nag wax nañu ni loolu yi mooy dël bi ko da bi ko yàlla daloon ni fa mooy inaaraa doohu ilayki moom la yàlla wax ne faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuha wala taasan wala taxlama anna waxdallahi xaq nee na yaayam bi mu ko yóbboo ba këram tuuti rek mu leeral ni sama dooma biral li nekk ci moom waaye yàlla musal ko ci wax ji loolu mooy kaadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala xalbiha li takuna min al muminin mooy tuut rek mu feeñal li ci moom bu ñu tëru tekkutoon ab xol nee na yàlla dundal ko dund bu tey moom Muusaa wattu ko bi demee ba dëgër Asiya daal di wax ndey Muusaa ni ko dama bëgg nga woon ma sama doom da koy dël bis bu mu war a ñëw wan ko ko ci na Asiya wax ñi doonoon ay ñi sasu ci moom ñoom gënoon a fonk ci jigéen ñi bokk ci waa nguur gi bu doon léegi da man nañ ñi soxna yi ministère yeeg borom personnalité yépp mu daal leen di invité ni leen yéen ñëpp ñu ngeen ñëw na kenn ko ne ci yenn ñëw indiwaale may gu muy may sa doom ji ak teraanga ju koy terale ci bés sàngam nee na bés bu ñu demee ba yaay Moussa di andi Moussa nee ñuy fab may yi mooy kado yi di ko ko jox di ko andil yaayam di ko ko jox ba ñi yenu attanatuñ li ñu yenu na ba ba ni mu agsi ci soxna si Firawna su muy Asiya moom mu teral ko dal ci bëgg dal di yéemu lool ci taar bi doom ji taaru ak màgg gi màgg màgg gu rafet gi màgg dal di ni ko jàllal ci Firawna ngeen mu teral ko nee na bind ci Firawna nee na Muusa dafa jàpp sikki mu Firawna ba xëcc ko ba dagg ci ay kawar te Firawna ku guddoon ab sikkim la jamono booba nee ba ci daggee ay kawar Firawna gaaflu loolu li mu def daal di itte woo rey ko nee ba mu ko bëggee rey Asiya ko kii xamul dara ci li muy def gone la rek daal koy jox ab tegtal ci ni ko li lay xamal ne xamu ci li muy def dara damay indi xalu sawara teg ak euh, o benn benn yaaquut muy benn or bu fekkee xàmmee na leen nga xam ne li muy def moo ko tey bu fekkee xàmmee wala nag nga xam di yëfi gone rek nee na bi mu tegee xalu sawara boobu ak yaaquut bi Eh, biñ bàyyee Moussa mu raam ba agsi jël xalu safara wi daal koy sax mu daal di ko mi ngi nii gone la ko xamul dara bu fekkoon ne xelu na xam nga ni moos du jël xalu safara wi di ko sax wax nañu ne Moussa bi mu ñëwee dafa tàllal loxoom jëmee ci jëw xaddi ci or bi bëggoon koo jël waaye jibril moo soppi loxoom mu yóbbu ko ci xalwa bi mu ko jëlee teg ko ci gémmiñam mu lakk ko loolu moo andi datamug làmmiñ googu ko daloon ba muy ñaan yàlla wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bi mu defee loolu yi aasee ni ko gis nga ko gone la ko xamul dara ndax bu xamoon dara du def lii nee na Moussa dañut doon ñu teral foofu fonk ko fi lool yàlla bëggloo ko Firawna bëggloo ko nit ñi képp koo gis rek bëgg ko loolu mooy wax wa alxaytu aleyka mahabbatan minni dañ nettali sax ni Iblis laaj nañ ko ne ko ndax bëgg nga kenn ci nit ñi mu ne déedéet ku dul Muusaa ibnu Imraan alayhi salaam de bëgguma ko nee na ñu ne ko lu tax loolu nan la mën a nekke mu ne ndax yàlla dane ko wa alxaytu alayka mahabbatan minni ba bëggeel gi ma ko bëgg tey ko mu ni cofeel googi doonul lu ma tey lu yàlla def ci moom la kon loolu yi moo aju ci juddu gi ak nàmpo gi ba nim delsi ci kër Firawna di fi yaroo melaw Muusa kambul ahbar wax na ni Haaruna dafa doonoon ku am fasaaxa ku leer ay wax kook buy wax wax ju teey lay wax nee na moo sutoon Moussa tuuti bopp bi amoon màndarga bu ñuul tetul làmmiñ wi am màndarga bu ñuul nee na Moussa moom doonoon ku euh, ku ku xees ku xeereer aw yaram doonoon ku rankaloo kawar doonoon am njool moom itam wax na ni aw làmmiñam ak dotam daf nekkoon akuk diis akuk akuk bar bu ma sànni wax dafay diis ba noppi bar tetul làmmiñ wi it màndarga mu ñuul moo ci nekkoon kon loolu yi mooy melaw Muusaa ibnu Imraan mu ni mufassiroon yi wax nañ ni Muusaa ibnu Imraan bi mu demee ba dëgër te daan war ànd ak firawn di sol col gu mel ni gi firawn di sol colug doomi buur ñu xame ko ci Muusaa ibnu Firawna nee na ci loolu yi la aaru ba liñ daan teg bani Isra maanaam moom Muusaa ci sababu Muusaa la bani Israil aaroo ba lu bare bari ci tooñaange ju ñu leen daan teg ak nu ñu leen tàggate woon di leen sonal wàññiku woon na ci jamono boobu ndax na buut ci moom ni dafa nekk ci kër na yaroo fi waaye yaayam ci bani Israil la bokk ginnaaw nag ñee ñuy bënn di leen sonal ñooy ay nijaayam mu bàyyi leen xel e, di leen aar kaaraange ju bare bari loolu soppi na lu bari ci coono yuñ daan teg bani Israil waaye loolu lépp nag nit ñi jàppewuñ ko woon dara lu dul jàpp ne lam nàmpe ci ñoom rek moo tax mu fonk leen teg leen foofu yi ñu wax ni benn bés Firawna dafa war booba Muusa néew fi bi ñëwee ñu ne ko Firawna war na mu daldi war topp ci ginnaaw moom Muusa bi mu demee ba digg ba cëkk am kendal dabe ko ci suuf si ñuy wax mand suuf soosi ma nga fa tàbbi ci digg bëccëg fekk ñu tëj marché yi gisul kenn ci yoon yi ko mën a laaj dara moom la alquran di wax ni wa daxala almadinata ala xiini gaflatin min ahliha mooy ba mu fay tàbbi ci jamonoy euh, càggante waa dëkk ba la fa tàbbi muy kenn yëgu ko nee na bi muy dox ci biir dëkk bi gis ñaari gaa yuy xeex kenn ki bokk ci bani israil ka ca des bokk ci àllu firawna niti firawna ni ko alquran waxee ni fa wajada fiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiatihi wa hada min aduwi muy mu fekk ñaari gaa yuy xeex kii bokk ci ab kuréelam kii bokk ci ay noonam nee na bi bokk ci ab kuréelam sàkku ci moom ak xettali mu xettali ko ci Euh, noon boobu bii mu doon xëccoon te noon bi mu ngi bokk ci waa ci xipt yi xipt yi muy waa Égypte dañoo xam ne moo daan lakkal mburu Firawna mi ngi tuddoon Qaanuun ñun dafa jënd matt nag euh, ngir yóbboo ko fa muy defare mburu ma daal di woo saamiri yu boobu ngir mu yanul ko ko mu bañ bi mu bañee ñu nekk ci xëccoo boobu bi fi Moussa jaaree mu sàkku ci moom ak xettali Moussa wax xibti yóbbi ne ko bàyyi ko xibti yóbbi te mooy euh, lakkatu bi ni Moussa ci sa liggéeyu bàyyi laa ko laa koy liggéey loo nii mu bañ Moussa ni ko bàyyi ko bi mu ko ne bàyyi ko mu bañ Moussa daal di mer daal di ñëw jàpp ko daal di sowee saamiri yu boobu yi ci loxol waajo ji bi mu ko sowee nag xibti yi boobu xëccoo ak Moussa bi ñu amee ab xëccoo Moussa dóor ko benn kurfañ dal di koy rey waaye ba mu koy dóor xamutoon ni dana dee ci dóor bii loolu mooy fa kasaxoo Moussa fa xadaya alay nee na mu dóor ko benn kurfañ rek mu dal di yem yonent Muusa daal ne ah lii de jëfi seytaane la innahu aduwun mudillun mubin daal ne rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara lahu innahu huwa alghafuru rahim Muusa daal di ñaan yàlla ni ko yàlla day ni ko yàlla day tooñ naa sama borom yàlla na nga ma jéggal tooñ naa sama bopp yàlla na nga ma jéggal yàlla jéggal ko ndax mooy jéggalekat bi di yaramekat wax bu ne na yàlla dafa wax yu Muusa ne ko giñ naa ci sama tedd nga ak sama màgg nga ni bakkan bii nga rey bu ma masoon a seral sama xol kem farfat la ayin mbaa mu mas yoon ni bi binde di wërsëgal rek dinaa la musal caf ak mbugal waaye li tax ma jéggal la mooy mësta seral sama xol kem farfat la ayin mësta seere benn yoon ni may aji bind ji di aji wërsëgal ci wax nañu Muusa bi mu reyee xibti yàlla rek leen gis ak Israël yi boobu mu ko doon xettali bi ko reyee nag xëy nekk ci biir dëkk bi am tiitaange xol di wër mooy fa asbaha fil madinati xaa'ifan yataraqab mooy di fuglu xibaar yi war a bàyyi ko ci mbooloo mi ak lan la ñuy wax waaye kenn xamul ku ko rey wax nañu ni waa misra dem ci firaawna ne ko bani israil rey nañu benn waay bu bokk ci ñun kon nag dañoo bëgg nga jëlal nu suñu àq ndax loolu kat mënuñ koo jégle firaawna ne leen andil leen ma ki ko rey ak ko ko seere ndax mënuma àtte ci lu dul ay seere ni leen dem leen ngeen sàkk loolu ngeen wëri ko daal ba am lu leer nee na bi ñuy wër amuñ benn seere ca ëllëg sa Muusa rombati israeli yu boobee muy nit kookee doon xeex démb muy xeexati keneen ku bokk ci niti firawna nee na mu sàkkooti ci moom ak xeetliku fekk jamono boobu Moussa mi ngi toll ci ak rëccute ci li mu defoon démb nee mu dal ci mer bi mu tàllalee loxoom jëme ko ci eh, misri yu bi te mooy nitu firawna ki ngir bëgg a tàggale seen diggante waxaale it waa ji ni ko innaka la xawiyun la qawiyun mubin hmm. ne ko boobu ko yow kat ku bew nga dal di tàllal loxoom buur jëm ci firaam niyu bi ngir bëgg ko jàpp wàjji tiit jàpp ni moom la Muusaa bëgg a jàpp mu dal di daw dal di ni ko ndax ba danga maa bëgg rey ni nga reyoon bakkan démb mooy aturiidu an taqtulanii kama qatalta nafsan bilams daal ni ko in turiidu illa an takuna jabbaaran fil ardi wa ma turiidu an takuna min al muslihin ni ko bëggoo lu dul doon ab jabaar ci kaw suuf bëggoo yewenal dara moom mii nga xam ne moom la dimbali woon démb ba tax mu rayoon nit moo ñëwati wax ku kàddu yooyu xanaa mooy dañuy wax ni noon bu yeewu moo gën xarit bu dof ndax noon bu yeewu mën na nekk ci lam nekk rek bàyyi la waaye xarit bu dof moom mën na laa yéenee jariñ sax far lor la moom la woykat bi naan inna labiba ida tazaayada bordohu ahra min asadiqi al ahmaqi muy aji xellu ju ak mbañeelam dolli ko ci yow de moo gën ci yow xarit bu dof saalih ibn abdul wax na ko wali an yuaadi aaqilan xayrun lahu min an yakuna lahu sadiqun ahmaqu nena noonoo ak ku muus moo gën di xaritoo akub daf da cay teg far ba bi nafsika an tusaadiqa ahmaqa inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu mooy na nga soril sa bopp muus di xaritoo akub daf ndax ab daf kat ndax ab xarit kat lu mu wax ci xaritam rek loolu la ñuy gëm te boo xaritoo akub daf mën na laa indil ay jafe-jafe yu bare bare wax nañ ne bi ñu xabaaree Firawna loolu ñu dégg ne ko Moussa mooy ki reyoon nit ki démb la digal reykat yi ni leen nañu ko rey ni leen sàkku leen ko foo ngeen ko gis rek nañu ko rey ndax as ngóor la sos daal du gindi ko kenn mënu ko teg ci yoon nee na benn waay bu bokk ci kurélu Moussa jóge ca kaw dëkk ba ñu di ko wax xasqil xasqil moom mi ngi daan dund ci desiiti dine ibrahim bokk na ci ñi jëkk a dëggal muusa alayhi salaam gëm ko jële nañ ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne ñi jiitu ci xeet yi de ñett lañu ñoo xam mosuñu wedd yàlla kem tarfataa yi mooy xasqil muminu ali firawna ak xabibu najjar ak saahibu yaasin ak ali ibn abi talib waaw mooy ali ibn abi talib radiallahu anhu moom lañ jubli ci saahibu yaasin mooy ki gën ci ñoom nag mu ne xasqil moom i di muminu aali firawn dal di ñëw jaar ci yoon wu gën a gàtt yoon waññee jaar ak si ci Muusa xibaar ko li xew ni ko mbooloo mi di ngi diisoo ngir rey la te it Firawna joxe na ndigal ci buñ la gisee nañ la rey kon nag génnal dëkk bi lii mooy li ma lay labiré loolu mooy li alquran di wax ni wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qaala ya Muusa inna al malaa ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka faxrujinni laka min annaasihin mu ñëw ne ko mbooloo maa ngi disoo ngir rey kon nag génnal nee na Muusaa di gëlëm xamul nu muy def xamul fu muy jaar am malaayika ñëw war ci kaw fas daal di ni ko topp ma nee na bi ko Muusaa toppee mu gindi ko won ko yoonu Madyan jële nañ ci Saad ibnu Jubayr mu jële ci ibnu Abbas mu wax ni Muusaa bi muy génn di dem Madyan muy génn misra jëm Madyan dox euh, dox juróom-ñetti guddi la jamono booba ñu di ko misaal ci ni mi ngi mel ni ku jóge koo fa jëm Basra mu ne amul benn ñam bu mu daan lekk bu dul xobi garab ca xobi garab la daan dund mu ni xobi garab yooyu mu daan dundee àgg na ci sax boo xoolee biir bi wert werti xobi garab yi jaxit jooju nga ciy seen wax nañu ne bi mu demee ba dugg suufus misra am juróom-ñetti guddi ci bés bi wàcc ba demee ba dugg ca suuf sa wàcc ca ronu garab ron garab googu ab teen nekk ca mu fekk fa mbooloo muy root di wëgg seenug jur Musaa jàdd ngir màndal aw maram ci ci ndox moomu ñëwee ba jub leen gis ñaari jigéen ñooñ dañuy dàq seenug jur di leen fekk ne la ca pegg ba mu ni leen luy seen mbir ñu ne ko ñun de dañoo mënta dugg ci biir raj rajloo bi ndax ay jigéen lañu sunu baay nag mag la mooy wala maa warada maa madyana wajada alayhi ummatan min annaasi yasquun wa wajada min dunihim imra'atayni tasudaan qaala maa xatbukumaa qaalataa laa nasqii hattaa yusdira ri'aa'u wa abunaa shaykhun kabiirun ñu ko waxee loolu am ci ñoom daal di ñëw wëggal leen am na nañu ne dafa am beneen teen boo fa nekkoon boobu bopp doj woñ ca daan teg mbooloo ñoo ko yëkkati Moussa ñëw ci kàttanu boppam yëkkati ko daal di leen di wëggal bañ màndal seen jur am ñu ne déedéet teen ba mbooloo ma fa nekkoon di raj loo kattan kenn ku ne ci sa kàttanu bopp nga sukkandiku woon Moussa bi mu ñëwee ko am kàttan la ko ko kooku mënuñ koo teree jàll ba àgg ca teen ba ba mën a wëgg ni mu bëgg a wëgge alaa ku xaalin daal alxuraan moom lim nettali mooy fa saqaa lahuma summa tawallee ila dhil mooy moo leen wëggal ah, ñu màndal seenu jur mu daldi delluwaat ci keru garab ga ngir di fa noppaloo bi mu demee ci keru garab gi daldi ñaan ni yàlla de aajawoo loo ma indil ci aw yiw wax nañu ne bi muy wax loolu yi xiif la def ba lu mu dimbandikoo rek ci xiif bi la jublu woon a ñaan nee na xale yi jigéen yooyu bi ñu delloo ci seen baay mun leen ah yéen gaaw ngeen a ñëw lool ñu wax ko xibaar bi ko dañ faa fekk ku nu dimbale moo tax ñu gaaw a ñëw nii nee na mun leen dem leen woo ko ma fay ko mooy fajaat hoo ihdeehuma tamshi ala istihyaa kenn ci ñoom ñaar ñëw di dox ci kersa daldi ni ko sama baay moo lay woo ngir fay la li nga nu màndalal sunu jur nee na Moussa di dem ba mu demee nettali ko xissa yi mu ne ko laa taxaf najawta min al-qawmi zaalimiin mu ne ko bul ragal mucc nga ci tooñkat yooyu wax nañ ni seen baay moo doonoon yonent yàlla Shuayb alayhi salaam loolu yi ñu bari ci mufassiroon yi la lañ wax nee na biñ demee bi ñuy dem te xale bu jigéen bi jiitu ko ay yéreem ngelaw di ko naawal mu wutaat dane ko dangay bàyyi ma jiitu fa ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeet ci sama kanam ndax ñun ci diine Ibrahima lañ nekk duñ xool awra moo tax biñ demee ba àgg ba bañ wax ak seen baay ba noppi kenn ci ñoom ñaar daal ni seen baay moo bàyyi tee ngaa luye kii mu liggéeyal la ndax ki gën de ci koy luye mooy ku am kàttan ba noppi di ku baax te kii de ku am kàttan la te ku baax la mu mel ni la leen xamal kàttan ga mooy dimbale gam leen dimbale ba ñu wëgg te foofa kàttan rek a fa daan dox ndax wax ñu ne ñu ni doj ba mu yëkkatee ca teen ba ñeent fukki góor ñoo daan dimbalante ngir mën koo yëkkati ba mu ñëwee li muy xiif xiif yëkkati na ko moom Moussa fam xamee amaanatu gi it mooy bi ñuy ànd di ñëw ngelaw li naawal ay yére mu ne ko dangay des gannaaw fu ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeer ci sama kanam ci la xamee ni kii xaw yi ju la muy ko am kàttan la ci la xamee ni it amiin la muy ko am kóolute la nee jigéen ji bi mu waxee loolu seen baay deful genn nattable lu weesu la di ànd ak ñoom ci seen xamemteef boobu ni ko dama laa bëgg a dencal kenn ci sama ñaari doom yi jigéen yi ci kaw nga liggéeyal ma juróom-ñetti at boo ko doolee ba mat fukk kooku sa coobare lay doon nee na Moussa ko waaw loolu danaa ko man ñaari digg yooyu bu ma ci def rek baax na waaye ak noonu moom fa suma yéene mu am suñ diggante mooy ay yama la jalay ni xabaytu falaa xudwaan alayhim léegi ñu dëppoo ci mu war koo sàmmal kon ci kaw mu dencal ko kenn ci ñaari doom yu jigéen yooyu wax nañ ni laaj nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari digg yi ana bu ci Muusa def mu tontu ni ba ca gën a mat la def léegi bim defee liñ seqoon jigéen ñaari xale yu jigéen yooyu ka ci gën ndawe la Moussa denc wax nañ ni moom lañ daan wax Safora kon lu aju ci yatu Moussa wax nañu ne Shuaybu bi mu waxee ak Moussa ba noppi dafa digal benn doomam bu jigéen bi ni ko indil ko aw yat ngir mu di ci dimbandiku ci càmm gi muy sàmm dana mu daal dugg ci pekk bi génneel ko aw yat waaye yat mu génnee yatu ndénkaan la Shuayb bu ni ko delloo ko yatu ndénkaan la wow am malaayika moo ko ko dénkoon bu bu defoon jëmmi jëmmi nit malaaka moom ba muy ñëw def ku dénkaal jëmi nit lef waaye nag am malaayika la fekk ndénkaan bi ndénkaanu bi yàlla la bu mu dénkaane woon ngir Muusaa mii war a ñëw jël si ko bi jigéen ji andi yar woowu jigéen sang bi ne ko delloo ko te andi weneen muy dellu di del si saa bu ñëwee rek yar wi muy indi mooy jëmm yar wa euh, bi mu ko baagante ay yoon mujjum Shuayb bi jël ko jox ko Muusa bi ko joxee yat woowu nag moom la yor di ci dimbandiku ci ak juróom te sàmm ba lim yooyu ñu seqoon muy juróom muy fukki at yooyu mat mu may ko doomam ji jigéen jooji wax nañu ni am nañu ak njaboot gu bari mook Muusa ah, moom doomi Shuayb bu jooju jigéen jooji wax nañu ni Muusa bi mu génnee Madiana demaat Misra Shuayb bu daan def at mu jot mu ñëw seetsi si ko bu ko mosaan seet si li ñuy wax ne Moussa day ñëw di ko demal mburu mi di ko toppatoo di ko lekkal fonk kon loolu mooy li aju ci càmm gi Muusaa doon sàmmal Shuaybu ak na mu ko dencalee doomam ju jigéen ba mu jóge fa wax nañu ni Muusaa bi mu sàmmee càmm gi ba mu dencal ko doom ju jigéen joji ba Muusaa delloo ko ak juram dafa yëkkate ak jur may ko ko moom Shuaybu ni nag mën ngaa yóbbaale jur gi daal ni ko nag boo demee booy dem ba fekk ñaari yoon yu xàjjale ko jëlal yoon wi ci sa wetu càmmoñ te bul jël yoon wi ci wetu ndijoor ak donte falam boobu ma ëppee sax ni ko wet googu dafa am jaan ju mag ju fi nekk jot damay ragal mu lor la mbaa mu lor jur gi Moussa bi mu demee ba gis fi ñaari yoon yi xaajali ko mu bëgga a soppi jur gi ñu jëm ci wetu càmmoñ waaye jur gi toppuñ ko mu bàyyi leen ñu jaar wetu ndijoor gi léegi ginnaaw bi Moussa di nelaw jur gi di for jaan ji bi mu ñëwee yat wi ci boppam moo jóg xeex ak jaan ji ba rey ko bi Musaa yeewoo gis yat wi taq deret mu gis jaan ji dee ci la xamee ni yatam wii kàttanu yàllaa ngi ci biir mu xam ni am na mbir mu ci nekk mooy aajo yeneen li mu doon wax ni waliya fiha maaribu uxra kon loolu bokk na ci aajo yi Muusa daan jëfandikoo ci yar wi li alxuraan nettali falamma xabaa Muusa lajara wa saara bi ahlihi dañu ne Muusa bi de demee ba jeexal dig boobu yi te mooy fukkeelu fukki at yi daal di jël waa këram nag di dem bi mu demee jëm yoonu misra ànd ak soxnaam ak euh, lenn ci curgoo gi di dox ci àllub saam bi xamul fu muy jaar nee na muy dox di dox ba dox bi yóbbu ko ci wàlluk doj wi ci wetuk ndijoor ci sow ci so sow ci wetuk ndijoor ci ngoon gu sedd gu lëndëm waaye bi mu demee wéeru foofu yi asamaan si tàmbali di dënnu di melxati di taw ba noppi soxnaam aw mat jàpp ko foofu yi ne bi mu tàmbalee matu Muusaa jël daju mbéy wi kocceel ko takkut ne mu gëlëm dalu jóg taxaw dalu toogaat jaaxle lool nee bi mu taxawee di setantal gëlëm lool yokkat lool di déglu kàddu ndax dana dégg dara mbaa ku ko mën a gindi mbaa dara bi mu jógee nekk ci jaaxle kooku la seen lu mel ni ak leer ci wetu doj wa mooy aanasa min jaani bi tuuri naaram waaye noor la mu jorse ko naar muy bi eh, mu séenee leer goog yi mu teg ko safara safara wu mag amul sa amul amul amul saxar di tàkk di jóge ci biir garab gu wert dana bi mu ñëwee ba jege ko dal di ci amuk jaaxle daal di arrière tuuti waaye bi mu arrière mu fàttaliku ittewoo gi mu woon safara tax mu daal di dellusiwaat rek ñeme ndax itte ji moo ko poussé ci lu mën a doon rek daal naa am safara te dellu nee na bi mu ñëwee ba jege ko ñëwoo ko ci peggu xur wi ci wetu ndijoor ci pàkk bu ñu barkeel boobu ci garab gi mooy nuudiya min shaati il waadi laymani fi l buqaati l mubarakati min ashajara an yaa muusa nee na mu xool gisul kenn nee na woote bi dikkaat ni ko inni ya ana allahu rabbul alamin ni ko man mi maa yàlla mi borom bi ndeef ñi nee na Muusa déggee loolu ak ruuxam dal di wetti li ko waxi boromam joji nee na boromam woo ni ko jegeel nee na bi mu nekk ci béréb bu xolam di fër-fëri aw làmmiñam dal di lot ba mënut ta wax mu dal di nit mujj di dund mel ni ku dee moom sax waaye nag wóorub dund gi daal mi ngi deng-deng ci biiram waaye amatul ab yëngutu amatul genn yëpp nee yàlla dëgëral ab xolam bi am xelam delsee ci moom ñu woowaat ko beneen woo ni ko faxla na alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa ni ko summee sa ñaari dàll ndax yaa ngi ci xur wu sell muy tuwa wax nañu ni li sabab ñu doon ko summiloo ñaari dàll yooyu ni ko Xaamid ibn Abdillahi al yi nettalee jële ci Suddi yu mu jële ci ahmad ibnu bajza mu jële ci aljamali mu jële ci isa ibnu yunus mu jële ci hamid mu jële ci abdullah ibnu mas'ud mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni dàll yi dafa jógewoon ci mbaam mu medd derub mbaam mu medd moo tax ñu ni ko faxla naa léegi moo tax ñu summiloo ko ñaari dàll yooyu bi mu jegee yàlla ne ko dama laa tànn ngir li ma lay ak yonant kon nag déglu lii ñu lay wax yi ni ko man maay yàlla amul benn buur bu dul man na ma jaamu te taxawal ak julli te di ma fàttaliku da nga xam ne bis luy dikk la dama ko nëbbu ngir bu ñëwee ku ne ñoo fay la nga daan jëf ni ko ñi ko gëmut buñ sa dox sa digganteeg moom mukk ñu topp seen bakkan ñu dox mukk sa diggante ak ngay fàttaliku bis boobu ndax boo ko defee day alkande dina la ci fekk dal ni ko loolu yi ci sa loxo lu mu yow Moussa mu ne ko lii de sama yat la dama ciy sukkandiku di ci wàññi sama jur am naa ci yit yeneen aajo mu ne ko sànni ko ne na bi mu sànnee yat wi mu def jaan di dox ah Moussa daal di am tiitaange xool ba na dawal ba ti ku daw yàlla ne ko bul ragal ndax ab yonente du ragal fii fi man daal di ko jàpp ko nee na mu jël ko mu defaat aw yat loolu mooy wamaa tilka bi yaminika yaa Muusa qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahussu biha ala ganami wa li fiha ma'aarib uxra qaala alqiha yaa muuse fa alqiha fa ida hiya xayatun tasne nee na mi ko jëlee mu defar aw yat nee na ne ko dugalal sa loxo ci sa pegg ci sa poos nee mu mu tàpp loxoom ci peggam nii bi mu ko génnee muy leer leer leer naññ mel na ab jant bay xaw a mën a fëkk bët yi nee mu ne ko ñaari kiimaana ngoogu yi ma jox la ko dëgërale la ko ngir nga dem ci firawna woo ko ci lii ma lay yónne woo ko ci ak ngëm ndax ku bew la ne ko woo ko ci tawxiid waaye firawna ak nim toll woon ak nim dënge woon ak nim ñaawe woon politique ci nim daan doxalee ak nit ñi xanaa ku cay dem day dana laaj nga yóbbu fit wu dëgër dana laajit euh, dana laajit ngànnaay na moo tax Muusa ñaan yàlla ne ko na ma leeralal sama dënn te fasu gi nekk ci sama làmmiñ mooy dotam gi nga dindil ma ko ndax ñu mën a dégg li may wax Euh, te it Haaruna sama mbokk la moo ma gën a leer aw làmmiñ nga boole kook man ngir mu wax te it dama fa rayoon bakkan ragal naa lool su ma demee ñu indil ma ci ay jafe-jafe nee yàlla ni ko boole naa la ak sa rak sa mbokk Haaruna dem leen ci lii ma leen yónni te bu leen lott mukk ci tudd yàlla fu ngeen toll rek da di dëgërloo di tudd yàlla mooy walaatan yaa fi dikri yazhaba ila firawna innahu taxa boo demee na ngeen ko wax wax ju nooy ndax mu fàttaliku ndax mu ragal yàlla ndax lee mu fàttaliku yàlla ndax lee mu ragal yàlla na ngeen wax ak moom wax ju nooy loolu moo tax boroom xam-xam yi di wax ni waaraatekat bi waaraate bu ne nag war ngaa jëfandikoo kàddu gu nooy ci sa digganteek ak ngay waa ndax yàlla kat bi mu yabalee firaaw bi yabalee Muusa ak Haaruna ci firawna da leen ni fa quulaa lahu qawlan layyinan na ngeen ko wax wax ju nooy te yow miy waaraate mënoo gën Muusa ak Haaruna ndax ay yonente lañ ka ngay waarit mënta bon ba yées firawna ndax àggoon na ci woote ni mooy yàlla firawna àgg na ci di woote ak olohiya kon ki ngay waar mënta ban ba yees firawna léegi bi yàlla waxante ak Moussa kàddu yooyu daldi ne ko demal misra mu daldi jóge foofu yi daldi jawali yoonu misra rek ci yonente googu ko yàlla yónni ba mu fekk yàlla wax yu na Haaruna xamal ko ni ko sa mbokk Moussa mi ngi ñëw boole nañ leen ak yonante gu ngeen war a doxi mu fajaru bi mu jógee teel a jóg wax nañ ni bisub gaaw ci njëlbeenu gu weeru sul xijja la jóg dal di maas wu jëm ci tefesug niil moom Haaruna ngir war faa dajeeg Moussa ci waxtu woowu biñ dajee ci tefesug niil jëkk jant bi fenk ñu nuyoo jokkulante nuyoo mbokk yu gëj a gise waxtaan ba dëppoo ci war a ànd dem ci Firawna nee bi àndee dem ci seen yaay nee na wax moom daldi ni ko dañoo yónni ci Firawna seen daldi jàq lool jàpp ni ñàkk na doom bis ni ki tey leen maa ngi leen di ñaan ngeen bañ a dem ci ngeen bañ fee jóge di dem ci Firawna ndax bu ngeen demee di leen di rey waaye ñu ni ko yàlla moo ni yónni sa ni yónni mënuñ koo ñàkk def dem ñoom ñaar ba àgg ci buntu dëkk bi bunt bi gën a mage ci dëkk bi moo gënoon a jege kër na ci bunt yi bunt boobu bi mu daan génne ak a dugge moom Firawna këram foofu lañ jaare wax nañ ne guddi altine ginnaaw terut teg zel xijja ginnaaw bu weeru si ja tàmbalee ba am benn fan lañ fa dem leneen bi demee ci bunt boobu yi kenn ci gardien wax ak ñoom ni leen ndax xam ngeen bunt bi kooku moom nee na ne ko bunt bi ak suuf sépp ak li nekk ci biir suuf si borom bi nekk yee ko moom mbooleem ñi nekk ci kaw suuf si jaa ay jaamam lañu ne waa jooju dégg wax jooj mosu koo dégg mos sa jot mukk ni kenn ñeme naa wax ju mel nii nee na mu déggee loolu yi nag mu dal dem ci ña ko féete kaw ni leen dégg naa di wax joj tey laa ko ma a dégg gis naa kii man ndax am na ñaari gaay yu nekk fii la ñuy wax de man ñemewu ma ko wax sax ndax ñu ngi woote ni bunt bi ak suuf si ak ñi nekk fii ñëpp jaami borom bi de fii lañ am na beneen yàlla